Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le de l'Élevage et des Productions animales, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et du Conseil économique, social environnemental, Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le préfet de Mbacké, Monsieur le président du conseil départemental de Mbacké, Monsieur le maire de Kael, notre hôte, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les présidents du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les représentants chers membres des organisations professionnelles de l'Europe, mesdames et messieurs les directeurs nationaux, directeurs généraux et chefs de service, autorités coutumières et religieuses, chère population de Baol, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum, de région de Diourbel, élèves yu département bu Mbacké ak élèves yu Kaol maa le ministre de l'élevage et des productions animales Samba Ndiobène Ka di nuyu la communauté des éleveurs di leen xamal ni journée nationale bi nekk na journée bu am solo ci koom-koomu Sénégal exemple ci lu ñu ab secteur rawatina secteur bu mel ne élevage ah bandiraaɓe aynaaɓe Allah jaaraama on jaaraama mi weltima sanni e darde mon hannde e mobilisation mon oɗo journée de l' élevage wonko woni heen koɗo mboɗo yiyatno journée de l' élevage mobilisation mawɗo kono ko wayni ko hannde wiyana ɗo e kayel ɗoon allah jarama o damay taxaw tuuti wax leen ni kontaan naa ci éleveurs yi kontaan naa ci ñu ngeen neex a jàppale ndax bi ñu tàmbalee opération sauvegarde de bétail yéen a géré à la maison des éleveurs aliment bi ñu leen di jox waxtu wii may wax ak yéen seen fonds deux milliards et demi mu ngi ci. deux milliards et demi yooyu dinaa leen ci yokkal fan yii di ñëw li nga xam moo jóge ci assurance arc yeneen ñaari milliards mu nekk quatre milliards et demi pour aliment de bétail su ko defee ngeen mën a yokk li nga wax la résilience ba nga xam ni bu jafe-jafe amee ci wàllu ndox li ngeen mën a am aliment bu yomb ci anam yu yomb dégg naa aussi li ngeen wax ci wàllu forage pastoraux Aliou Dembourou Lela wax na ko war ngeen bokk su ñuy gérer forage pastoraux forage yooyu dañ ko def ngir jur gi kon mënuñu ko gérer te éleveurs yi dugaluñ ci seen loxo am ci seen xalaat bokk na ci gestion bi alors li ma ci bëggoon yokk mooy mécanisme bi wax léegi ci wàllu aliment de bétail danañ ko renforcer jàppale waat leen ci atum 2019 bii di jeex ah mécanisme boobu lu ëpp juróomi milliards ba si juróom-ñaari milliards remboursé na ko Sénégal kon xam leen ni dinañu nekk seen wet ngir jàppale jiw waaye li ngeen wax si seen déclaration bu Kayel mooy la modernisation de l'élevage mangaan dafa nekk loo xam ne fii lañ ko fekk muy tradition waaye élevage yu tey war na gën a moderniser wu maanaam ñu fexe jur gi di am lu mu lekk sur place dootu leen dox ay distance jóge Podor jëm Tambacounda pour loolu nag danañu liggéey avec le ministère de l'agriculture le ministère des collectivités territoriales mais surtout avec l'association des maires pour que ñu jox leen suuf buy permettre ñu produire les aliments de bétail ñu produire euh, les cultures fourragères ci anam boobu rek la ñu mën a de l'élevage intensif à partir de l'année 2020 dinaa wut tuuti nag pour di produire naaw euh, pour aussi di woo tous les acteurs yi nga xam ni mën nañu dugg ci élevage moo xam animal bu mënti doon moo xam nag la xar la pigeon gis naa fi léegi élevage pigeon bu am solo gis naa élevage même ay Euh, animaux yoo xam ne souvent daawu leen bàyyi xel te loolu yépp léegi sénégalais yi ñoo ci intéressé wu kon nag di ngeen am éleveur bu bees en la personne du président de la République. Je tiens à exprimer ma satisfaction à votre ministre, le ministre de l'élevage, M. Samba Ndiobène Ka avait exprimé donc ma satisfaction Samba Ndiobène ko ganndo Samba Ndiobène ko nunduɗo ko Karay Siré ko Njurum Deero ko neɗɗo moƴƴo tinniɗo ɗum noon ballon mo o waɗa réussir secteur élevage mo ndesnimoni o enfin je saluer tous les acteurs comme yéen am raaya maa ngi leen di kañ di leen féliciter temps bi ndax li xej ci jour li dugg bi yëpp moo bëri waaye waroon naa kenn ku nekk si ma jox ko raayaam féliciter ko sama bopp ci turu réew mi yëpp waaye nag ñu leen di joxaat rendez-vous incha allah pour la septième édition de la journée nationale de l'élevage te bu boobaa dinañu évaluer lii nga xam ne wax nañ ko tey ci Kael te mu jëm ci mbéyum euh, ñax mi muy la production de culture fourragère mais aussi li jëm ci améliorer génétiquement jur gi loolu yëpp mooy wane ni journée bii dafa nekk journée bu am solo ci seen diggante ak njiitu réew mi seen diggante ak gouvernement bi pour que at mu nekk ñu nett li nga xam ne dox nañu ko si ay jéego waaye tey daal kontaan lool ci lii xew fii ci Kayel maa ngi di sant yéen di leen gërëm wasalaam